salaamaaleykum mbokki 24 actu dalee nag jàmm ci seen journal di màggal ci njiital Pape Demba tey directeur du ministère taxawal nañ benn ndaje fële ca Touba Ndindi 2 ci village bi ñuy wax Nebodji ànd ci ak groupe Eiffage ngir lancer projet bi ñuy wax Boucout di Ferlo ci ndaje boobu nag Serigne Bass Abdou Khadir Mbacké moo fa teewaloon Serigne Mountakha Mbacké ba tax na kii di Serigne Bass Abdou Khadir moo daal di def rek li ñu naan pose di première pierre. ci projet boobu nag bëgg nañ dimbali zone yi di njuum Linguère ak Touba ngir rek ñu mën am énergie électrique bu toll ci deux cent vingt cinq kilowatts te projet boobu liñ ci xayma ci ay koppoor mu ngi toll ci juróom-ñaari milliards waaye tamit bëgg nañ développer réseau transport bi. tey jii di juróom-ñeenti fan ci weeru septembre tombi ak premier safar di nekk bés bi ñuy wootee mbale mi fii ci dëkk bu sell bi di Touba mbokki taalibe yi ñu ngi ci koñ yi si marché yi waaye tamit ñu ngi fii nga xam ne mooy jumaa ji ngir rek dëkk bi ak waajal màggal gii di 18 safar waaye tamit ngir jëfe ndigalu sëñ bi ba tax nag képp kuy jaaykat nekk fële sa marché Ocass daan ngay tëj sa magasin waaye tamit taxawal nañ fa ay camion ngir mu jële fa bépp salté bu fa nekk si bésu tey bi tamit kii di ministre de l'environnement Abdou Karim Sall ak waa urbanisme daan nañ teew si résidence Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké bu Touba ànd si ak sëriñ Bass Abdou Khadir si ndigalu sëñ Mountakha Mbacké ñu indi woon ay matériel yu ñu yitewoo si màggal gi ngir rek setal dëkk bi comme yu ci mel ni ay per ak ay tracteur ay masque ak yeneen matériel yoo xam ne rek dinañ ko soxla ngir rek setal dëkk boobu. mbokk yi jëra ngeen jëf loolu moo nekkoon lu fi wàccoon ci ay xibaar di leen wax rek di daje bu beneen yoon.